Futurs Médias di leen dalal jàmm ci xibaaru ngoon si ngoone maa ngi lay ziar bu baax. Ah, Jackson yal na yàlla nangu ziar ziar mboolem téléspectateur yu ñu jàkkaar lool. xibaar yi bokk na ci doyen des juges bi sàkk ju topp ci yoon Barthélémy Diaz ñeel boomu Ndiaga Diouf moom Barthélémy Diaz maire bu euh, Mermoz Sacré-Cœur euh, di rek sàkku ci assemblée nationale mu muri kirlaayam ñaawlu na nag li nu toppul mu ne responsable yi si yi mu jàppe ne ñooy ñi euh, boomlu ñooy commanditaire yi port bu Ndakaaru Trans signé jamono yi ña ca convention ngir rek lii di terminal vraquier bu mol 8 ñaar ci milliards ci dem loolee nag ay portuaire di opérateur ñaawlu ko ndax dañu ne Trans Orange nekkinam ci port bi du jur lu may euh, ñàkkum xëy ak it euh, entreprise yu tëj euh, mburu mi wàññi gi nguur gi dogal naka boulanger yi ñoom wut pexe beneen wàññi lii di poids baak guddaayu mburu mi mu mel ni ci yëf yi kon ak naxe da caa am jëm ci client bi ci boppam taxaw seetlu di focus bi ñu ngi ko jagleen mbokk yi njàng mi Sénégal Abdoulaye Wade mi gis nag deltu ginnaaw da ca am bu ko méngaleeg lam fi baak na Macky Sall liggéeyee di ngeen ci am ci gëstu bi xalaatu acteur di ñu yëngu ci njàngale mi waaye it étudiants yi ak it ñenn ci askan bu Sénégal njàng moomee sax ak étudiants yi seen jàppante diirangile ci xibaar ci avenue Cheikh Anta jàppante yi metti seen digg ak takk der yi li ko waral di dañuy ñaxtuy bourse ak ñu ne franchise universitaire yi di nekk nu takk der yi ci biir daara yi Adiya Tallé ak ñun ci euh, téléphone bi maa ngi lay nuyu Adiya. maa ngi lay fay Hajasan naka la xeex yi deme foofu diggante étudiants yeeg takk der yi nuñ ko waxee. waa Hajasan comme ni ñu ko waxee fii moom mbir na ñoo ngi ci biir campus universitaire bi ci avenue Cheikh Anta Diop bi xam ni bi nga xamante ni moo université bi ak euh, courte police yaa ngi fi fees dell tali bi moom liñ fi nemmeeku tey jii ban musuma gis de toute l'histoire de l'université ay xeer kese lañ fiy gis ak ay tronc d'arbre yoo xamante ni ñoo ngi ko teg ci tali bi ak ay takk der yu fees dell ay table yu ñu daaneel ab bëri tamit ci étudiants yi nga xamante am nañ ci ñun ci jàpp lu mot une vingtaine d'étudiants ñoo ngi policiers yi ñoo ngi leen fi mu nekk nii nag jàmbaarloo bi ñoo ngi jàkkaarloo ak ñi nga xamante ne ñooy policiers yi policiers yi ak étudiants yi ñoo ngi jàkkaarloo ci biir euh, campus universitaire mooy ah, xam nag fii nag luy problème bi mooy mbirum franchise universitaire ak faculté yi yi nga xamante ni dañu ne ba léegi jotaguñu seen i bourse te ñoom nee nañu dootuñu ko nangooti diggante bu mu nekk nii nag avenue Cheikh Anta Diop bi diggante lu jëmee euh, mooy Tour de l'Oeuf ba nga xamante ni mooy canal Fass bi lépp dafa fees dell ak ay xeer ak nit ñi tamit ñii di doxal dem di ñëw koo ci gis rek mu ngi fàtt bakkanam ndax xetu lacrymogène yi fu mu nekk nii daal Hadj Assane liñ fi nemmeeku dafa jéggi dayoo euh, takk der yi fees nañ fi dell muy ay lim nañu lu toll ci fukki pick yi nga xamante ni lëpp ay takk der nañu ñii nekk ci ay civil ñii sol ay tenue situation boobu lañ fi nemmeeku ba léegi nag ñoom ñoo ngi veillé ci grève bi ñoo ngi taxaw ci buntu université bi di tere képp ku fi taxaw wala ci di jéem def naka su dul noonu fi mu nekk ni daal xaaja xam fii dafa jaxasoo dafa lëmbee jërëjëf jërëjëf Adiya mu nekk mbokk yi jàppante yi métti yu am jamono yi diggante eh, takk der yi yi ak étudiants yi ci avenue yi ñaawlu seni bourse ak étude ak takk der yi ci seen bir daara jojé euh, ñu gis ne dal dañu jalgati yoon di respect gi jëm ci walu franchise universitaire leneen ci walu xibaar di walu yoon ak lu ñeel euh, mbiram maire bu Mermoz Sacré-Cœur Barthélémy Diaz kat bi ngone juge d'instruction sakuna ak top jëmee ci mom néna nañu ko top mom Barthélémy Diaz mu soxal Fatou Ndiaga Diouf kon ci lolé le euh, bëgg ñu topé ko kon ci walu yoon nag xamante nak mom moy maire bu kon Mermoz xam le euh, sàkku na ci assemblée nationale ñu daal di euh, muri ak kirlaayam Barthélémy Dias lu waral lay responsable euh, ci bir PDS ñomit ken kenn len ndax japp na ni ñom ñoo commandé mbir mi Aminata Mbaye saw doyen des juges ñaan yi dossier bu Barthélémy Diaz ci mbirum Fatum kii di Ndiaga Diouf Barthélémy Diaz ni fi mu ni pare ngir dem juge bi man tey lu justice décidé Mangichi ci sant yalla parce que Néna, Manmi, man mi dama soxla li di deug sénégalais xam ko. lolé waral sax dem na assemblée nationale daal di fay dugal ay ñaan ngir ñu yëkkati malanu kiirlaayam. waxtaan ak suma secrétaire assemblée nationale nena ko na yónni bataaxal 149 députés yi ñaan leen ci njëkk ak teranga na ñu li di suma immunité parlementaire ndax ma mën Diakarlo ak justice sénégalaise euh wax ak ñom ne lan la dundu man tamit tontu sen ay question parce que man tant que justice tranché wul duma ma contane ma kontaan. Barthélemy Dias nag mu ngi ñaawlu li nga xamni wa parti démocratique sénégalais. en woowu leen ci mbir momu xewon ci buntu mérim gëna ñaawlu ci ci euh, ci dossier bi moy danaka amul kenn bir PDS amul kenn bir PDS buy taxaw kanaamu juge parce que dañu japp ni. PDS kenn defu fa dara mais man su ma xalaat bokkul ak loolu. ci fàttali congu mairie bu Barthélemy Diaz mu ngi xewee woon ci décembre 2011 bés boobule ay ndaw ñoo ñëwoon foofu ginnaaw bi mu génnee nag ay tiir fetel daal di fay am kenn ci ñoom daal di ñàkk bakkanam ñu waxtaanee port bu ndakaaru ak coow la fa jamono yeeg yegg si kër gi di nekku trance euh, mook euh, port bu ndakaaru sax kër googee jamono yi ñu ngi ci am xew jëm ci signé convention de concession euh, bu Môle 8 jàppale ni nag wàllu woowee opérateur portuaire yi ñoom ñaawlu ko ndax nekk nu nekku trance ñu ne du jur lu may ñàkkum xëy ca port ba ak it entreprise yu tëj Fatou Bintou Konté lu nu ci àndal ak Jafara Ba ñeenti weer a ngi nii ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci terminaux portuaires yi nekk fee ca port autonome de Dakar nag ña ngay xeex ak waa direction générale bi li te nga xam ne kii di docteur Cheikh Kanté moom moo ko jiite ndax dañoo bëgg seen terminaux yi nga xam ne ñoom ñoom la ñu yore ñu bañ ko jox société bi ñuy wax Necotrans. ay société yoo xamante ni comme ICS comme MLT ak ñeneen fii la nekk yore seen i activité di ko liggéey normalement danoo jékki-jékki rek directeur du port au mois de novembre le 13 novembre bien entendu daal ni moom Mom, li nga xam la Sénégal yi doon liggéey fii ci biir port bi dañ koy jox euh, euh, Necotrans muy euh, société boobu nga xam France société bi nak ab société bu mag la nek ci France bëgg ñew nak samp ay ndëndëm fi ci port ñu jox ko ci nak ab pàcc gu am doole té nak respecté ñu yoon nan ko ko joxé modi attribution marché public fi ci Sénégal. loolu bu nu bayé mu lu mat dix société yoo xamante ni ñu ngi fii di def liggéey bi normalement danañ tëj lu toll ci 3000 personnes danañ perte seen liggéey. ñu fas yéene ko signer benn convention boo xam ne toll na ci ñaari milliards ci suñuy koppar ngir mu mun a installé wu fi nga xam ne moom mooy port autonome de Dakar société bi di Necotrans nag boo fa nee jamono jii emploi yi bëri dañ koo nar a perte te nag lu toll ci fukki entreprise dañoo nar a tëj. dafa waroon def appel d'offre ñi nga xam ñi ngi ci mbir mi mu ne yëgal naa leen ni lii kat état bi da koo bëgg a def ñooñu ñëw xool ci yan anam lañ ciy duggee loolu dafa ko waa trans ñëw ni dañ fay def ñu fàkkal ko fi loo xamante nag mi ngi toll ci quatre-vingt-onze mille mètres carrés contrat bi nag mu nar a toll ci vingt cinq ans ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci port autonome de Dakar ñi ngi koy naqarlu ba fi mu mën a yem te jàpp nañu ne sax bu lu signé bi des contrat ab njuumte gu rëy la ñu nar a def ñi mu waxtaanee ngoon wàllu secteur énergie jëw nañ jënd ko dénk ak bëccëgu information gi mu ci amal euh, moom ministre bi ñeel secteur beeg amélioration jéego yéen ci def ak it mbirum fraude bek euh, loi bi nu ci taxawal. la ko tax a ni nga ko waxee age xol jéego yoy waaye it coppite yi nga xamante ni def nañu ko euh, ci biir secteur bi wax na it lu jëm ci collaboration bi ñuy def ak SAR waaye it càccum courant gi ak daani nga xamanteni ni léegi ku ko defati ñu dal sa kaw makital ma nga won ci ndaje ànd ci ak Mohamed Dieng. mbirum courant bi mu ngi dox wala bokk mooy li jëwriñ bi ñu dénk mbir boobu wax ci am ndaje bu ñu amaloon ngir waxtaanee ci situation boobu. affaire yi qualité bi li ñuy wax délestage wàññeekul bul bu baax a baax a baax ci Sénégal wàññeeku boobu nag ñu gisaat ko tamit ci année 2013 te il continue di liggéey pour que 2014 ak année yi ñu ñëw tamit délestage boobu nga xam ne ñàkk. production moo ko indi woon dootul am Sénégal. avancement boobu li ko waral mooy wàññeeku bi am ci defaru courant gi ak coppite yi am ci mbiru kopparu waa Sénélec. mooy li ñu mébét pour que li ñuy defaree courant bi mën a wàcc ndax bu wàccee loolu nga xam ne gouvernement bi moom lay jàppalee consommateurs yi ci njëkk yi dinañ ko mën a wàññi ba supprimer ko xaalis boobu ñu mën ko yóbbu ci kaw gi. yokk électrification rurale bi ñu continuer wàññi njëkk yi euh, li ñuy defaree courant bi loolu dinañu may lépp lu ñu wàññiwaat ci defaru courant bi ñu mën ko wàññi ci njëgu courant bi nguur gi fas ne newul bàyyi saar waaye dina saytuwaat ni ñuy àndee ak ñooñule ba pare dëggal pénalisation fraude ci courant yi saar boobu gouvernement bi dafa jàpp ci moom depuis léegi mu mat 10 ans ñu ngi waxtaan ak ñoom te ci li ñu teg ci kanam mooy naka la ñuy def ba SAR continuer di exister. code pénal bu bees bi nga xam ne moo war a dem assemblée nationale gouvernement bi dugal ci affaire yu sàccum électricité. mbiru courant di lu am solo te jël yoon wu jub ci jamono yi waaye lépp jekkul askan wi di am yaakaar ne coppite yooyu dana continuer ci lu baax. ñu waxtaanee mburu mi ngoone xam nga ni wàññi nañu ko waaye daanaka bàyyi ko ci njëg laa gën ndax gaa yi ñoom wut nañ pexe beneen boulanger yi. seetlu woon ni ñëw xit mi wàññeeku na. <laughs> non tey nekkiwu ma dama kii dama woor. <laughs> ngoone nag ak séeréer dafay bëgg mburu mburu moomee ni ñu ko waxee ñii di boulanger yi pexe gi nu wàññi baguette ak poids ba mu mel ni daal ci mujjantal kilaan bi mooy ki nu ci njublang may mun a njaay la ñu ci àndal ak Thierno Laurent Mendy bii mooy kilo mburu bi jar fanweer mu gën a woyaf teg ci gën a gàtt bu ñu ko méngalee ak bi fi amoon mu mel ni mbir mi ñaar la. nga nekk père de famille doon jënd ñaari mburu cent quinze 175 trois cent 350 mu pour pour yow sa ñetti doom nga koy jëndal benn mburu bi muy 6 personnes ñu jox la beneen façon mburu boo xam ne dafa tuuti gàtt mais bu respecté poids bi nga jëndee ko fanweer mais boobaa boobu ñaari nit ak la mën a am. kon dégg pour nga jiit dundaal sa ñaareelu doom ji faw nga jëndaat beneen mburu fanweer. boulanger yi li ñaan mooy ñu sàmmonte ak pois bi ñu tëral. boulanger bi su dee dafa nar a continuer bëgg du guddal mburu mi du mën a am poids ba ko nguur bi laaj kon dana nekk infraction te yoon ñun duñ digal kenn mu nekk si si infraction ku ko deful four di nga ko di ko di nga ko tëj tëj yu gaaw ku ko deful. Euh,

ñu yokk poids bi mu nekk 220 grammes. mu mel ni def nañu ci bopp nit ñi ne mburu mi wàññi nañu njëg li wante booy seet la fi newoon moo fi ne ba léegi. leneen ci xibar ñeel walu élection locale ak waajal gi ak Sénat beeg liste Touba bi mel na ni Sénat beeg njiit la ñu ngir wax ci euh, lu sori ci bobu liste ñeel Touba ngone parce que taskatu xibar yi doon nañ ko ci xaar waye mom euh, señ bi ndir euh, waxu ci ma nga teewoon nag ci prestation de serment naataangoom bi di Saliou sar wuutu kon ca poste ba mbay meng mi génn àdduna lu toll ci at du du ndir ci liste Touba ay waxam new ci mu xam le ni Sénat bi dal waxtu yi ma nga cay xalaat. Aline Kane moo taataan ay kàddoom. liggéey bi ñu ngi koy def du dëgg yàgg nañ ko def ñu ngi di ko def te yaakaar naa ne fi ñu ko jëmee pour leeral askan wi rek la ak njariñu askan wi loolu mooy suñu cër noonu lañ koy doxalee ba ca njëlbeen ga ba ca ba mu ca pàndaw donc mi ngeen xaar déglu ñun ñu ngi wax wax nañu boo wax di wax di wax nag sa wax du am maanaam wax nañu benn yoon léegi nañu ñoom foofu merci ñu waxtaanee pajum cosaan mi ak lu wër euh, fii di stade Iba Mar Diop di ngeen seetlu gaa yi fa toog di jaay ay reen ak sunguf ak lay duur gi nga xamante ni Pierre da Silva tàmm na ko lool. Euh, seen njëy ñit ma nga fa ñoom jaaykatum euh, cosaan yooyu nag ne bu nu sañoon nguur gi dugal ak yoonal ci seen ab liggéey da ca am ci di jaay ca xamunu dara ci métier mi Alioune Kane mu ngi fa woon ak Younous Diatta. ay béjjén ay sunguf ay téere ak yeneen yi ni mel lii mooy xar kanamu stade Iba Mar Diop. jigéen day ñëw góor day ñëw. bu am hémorroïde day ñëw bu am euh, diabète dana ñëw tension dana ñëw estomac dana ñëw góor bu tel euh, pour jafe-jafe wàllu say euh, boo boo tale bu baax day ñëw ci man. muy góor di jigéen di mag di ndaw ñëpp a ngi buur jëm foofu foofule waaye nag li ñuy jaayee mbir mi wuute na. ci téere bi moo gën a yomb pour cinq cent téere ba kii bi xale bu tiit wala bu sola la bu jànga wala pour kibi, bi pour jàng école wala alquran yi c'est mon dessin pour les japonais ça quoi. am na 1000 francs am na 2000 dama yomb rek ma dimbale nit damay nit ngi jaay bu nit même amul xaalis. bu bëre boo mu ne ah man sonn amul kaalil mun na ma dimbal ko. tradi praticiens yi nag jàpp nañ ne ñenn si ñoom ñu xamut liggéey bi te ñu koy def loolu nag day indi ay jafe-jafe ba tax ñu ngi ñaan nguur gi ñu taxaw a des gens qui ne s'y connaissent pas. fajum cosaan mi bëri nañu ñu ciy yëngu te nga xamante ni amuñu ci benn xam-xam loolu nag day indil gàllankoor yi nga xamante ni ñooy euh, client yi ñuy laaj rekk ministre bu yor wàllu wér-gi-yaram ñu jéem a saytuwaat secteur bi. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? naam jëndkat yi bëri woon nañ foofule waaye nag kenn yeyul yàbbi ci suñu kanamu caméra. ñu yegg si mbokk yàgg yéen ci focus di taxaw seetlu gën a jagleel tey jile wàllu njàng mi Sénégal li ko waral di Abdoulaye Wade mi nga xamante ni euh, dafa gis ne fa mu ko yeggale woon njàng mi Macky Sall yokku ca daawaaj yi euh, ban gis-gis euh, ngeen ci am wala boog ban gis-gis la ci acteurs yi am ngoone ak mm. étudiants yi loolee la ñuy waxtaane Abdoulaye Wade daal moom jàpp na ni ab deltu ginnaaw da ci am ngoone deltu ginnaaw avancé jéego yum ca tegoon gis na ni ki ko wuutu daal da ca jëlee lu bari ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo yëngu ci njàng mi xam ne nañu ni comparaison boobu jaru ko yoon wax nañu ci wàllu jote ci lekkool bi nu ñu war a def daal ba wàllu science gën a am doole ci moomee njàng defi bari na waaye gis nañu ni suñu demee ba ca kanam xëy na teg suuf xiroo beek ŋaayoo bi bu boobaa mbir dina feeñ reportage Aminata Mbaré saw atum 2013 2014 nemmeeku nañu ab dal ci wàllu njàng mekk njàngale mi. dañoo taxaw seetlu. ne kat comme euh, déglu nañu li euh, euh, askan wi wax déglu nañu waajuru ndongo yi ak ndongo yi wax nañu ajandi lépp lu ñu doon def may nguur gi mu toog bu ko defee ñu mun a xool na la ñuy régler problème yi mais li li war a wax quand même mooy que ne jafe-jafe yi fi amoon bu yokkuwul également wàññeekuwul. donte sax gis nañu ñu ngi def ay jéego ci wàllu njàng meek njàngale mi waaye teewul ñi gis ne li ñu war a dolli moo ëpp. lii nga xam ne mooy tax ñu xale yi seen jàng bi jëriñ muy ay laboratoire matériel scientifique ay professeurs scientifiques ñu fexe ba ñu am ci école yi yu mel noonu moo nekk ci programme yi nga xam ne ñu ngi koy déroulé ba pare nag école yi nekk fu ne ci Sénégal lu jëm ci lu ñuy tuddé gestion démocratique du personnel lu jëm ci également euh mëna tase ak euh, ministère ministre bi ak euh, ay collaborateur pour waxtaan li jëm ci biir école bi. bu ñu sukkandikoo ba légui ci Racine Senghor nekkoon fi directeur de l'enseignement moyen secondaire général ngir ñu am li ñu bëgg ci walu jang mek njàngale mi faw ñu bàyyi xaajat lo politique bi djublu ci solution yi nga xamni day jël temps. yoy moy problème yi ñu war régler té régler ko nak duñ ko régler ci ben fan ni ma la wax la ay programme ñoy régler loolu parce que mënoo xëy tey tey tey ne tey jii dinaa am professeur de chimie wala tey tey dinaa am problème de philo c'est pas possible. ñu am yaakaar ne syndicalistes yi enseignants yi assise de l'éducation yi ñu bëgg amal du ñàkk ñu am début de solution ci problème yi nga xam ni njàng meeg njàngale mi am na ko fii ci Sénégal. université Cheikh Anta Diop étudiant yenn yi ñu ca waxtaanal ñoom gis ne Abdoulaye Wade fa mu ko yóbbu daanaka gisuñ ne mag yi Sall eggagum na fa sàkku nañ ci moom mu gën a góorgóorlu ñeel njàng mu kawe mi Fatou Dieng mu nga foon ak Younous Diatta Euh, ci waxtu tàkkusaan ci lañu fekk Abdoulaye Ndoye muy nafar ay kuuram ndongo bi tollu ci master 2 fele ci faculté des sciences juridiques et politiques manam droit joxe na xalatam ci wayu njang ak njàngale euh, ci diggante ñaari régime yi. Abdoulaye Wade ñëw na def na bu ku amul bourse au moins am nga aide mais avec Macky Sall mom dafa ray étudiant complètement Abdoulaye Wade mo gënon disons. am yërmande si étudiants yi que Macky Sall quoi. Mhm. dañu sévère ñoom nga jàng ba am licence ñu ne la sélectionné wuñ la dàq nañ la alors que fii ñun ñëpp xam nañ que ni. étude bi ñuy jàng ñun université après nous sommes préparés pour faire les concours quoi. ci université bu Ndakaaru ndongo yi danoo jàpp ne Sall ak ñooñam dañoo war a gën a góorgóorlu. policiers yi ñoo ngi fii dañuy dugg ba si biir en fii ñun dañu sonn si policiers yi. démb démb dem nañ direction des bourses pour affaire renouvellement yi. Mhm. jël nañ suñuy dossier ampli amplié ko noonu tey ñu xëy ñu taf benn demande comme benn note comme quoi nee nañ mhm. les demandes de renouvellement ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre. bu fekkee ne it ndongo yi nu taseel danoo jàpp ne Abdoulaye wadd ak i ñoñam def na ni jaloore jamono yu nu yoree réew mi ci wàllu njàng ak njàngale jàpp na ni wet fi mu ne nii jàmm am na fii ci université bu Ndakaaru campus social dafa gën a organiser. Mhm. boo fa rombee di nga gis que ni waaj def na fa ay réalisation vraiment rafet na quoi. wàllum franchise universitaire ak yenn bourse d'études yu nu fi jëlee euh, doon na ay wax yoo xam ne dox na ci diggante nguur gi ak ndongo yi réforme yooye sax tax na ndongo yu bëri euh, jàpp ne Abdoulaye Wade ak ñu ñam li ñu fi def Macky Sall def bu ko fii ginnaaw étudiants yi ngoone askan wi ñenn ci ñoom ak seen gis-gis ci njàng meeg tolluwaayam am na ci ñu jaajëfal euh, président Wade ñenn ñi def lu ni mel jëm ci président Sall mu mel ni kon avis partagé la. ñenn ñi daal nee nañ bu doon examen maître Abdoulaye Wade danañu ko jox euh, mention bien am ñoo xamante ni euh, kit président Macky Sall ñoom fa ñu gis ni xëy na fa la liggéey rek moo di politique bi mu teg ci wàllu éducation Salimata Aw Seck njàng mek jangale mi gouvernement bu fi jaar def na ko sa yëfu bopp wante at yi ñu wessu dañu nemmeeku ni bari na ay jafé jafé lolu parents d'élèves bi limu mu xamle mooy bilangu Ablaye Wade moom moo gën fouf bu Macky Sall. mu tollu nii actuellement day xool lycée Gaston Berger actuellement ils sont en grève hmm? li nga xam ne euh, moom day xool aussi les les les bacheliers ñi nga xam ñuy récemment am nañ bac mais jusqu'à présent jànguñu kon nak fu ku ne léegi enseignement baa ngi dox da ngay wax lu neex. mu nekk xalaat boo xamante ni waa ji nanguwu ko ndax li mu xamle mooy at bii daanaka grève amul. éducation bi am na yokkute ci daara yu mag yi ak ak ak ak yu ndaw yi gis naa gis naa ci yokkute waaw ndax dama yor ay élèves sama kër gis naa par rapport ak régime bi passé ak bii xam naa ne bii. lañ gën a lañ moo gën laa sant laa yëg ne moo gën a kii daal positif daal ci ci ci man. bourse yi nekk mbir moo xamante ni metti na loolu waajuru ndongo yi. wàññi na bourse élèves yi xale lekkatuñ lu baax dara loo xamante nii rek ñun suñu doom yi di jàng ñu ngi koy gis ci côté éducation. ñu doon jàng di am seen i bourse di di fay seen i itit di fay seen i euh, lekk di fay seen i lépp ñun parents yi booba sax sonn ñu. ay grève yu bëri ñu am seen i diplôme ba pare di sommet. ay étudiants yoo xamante ni kenn orienté wu leen année yoo xamante ni ndongo yi daanaka jànguñu ci dara ci gàttal njàng meeg njàngale mi yëngatu na woon loolu ci at yi ñu weesu loolee tax ba ñi ñu dajeel ñu ci bëri di xamle ni dañoo war a rekk amal li ñuy duppee assise nationale ci éducation daanaka door nañ ko wante ñu gën a yokk seen ndoxo ngir mbir mi tàmbali. wàllu tagat yaram ngoone as tuut ci basket laata ñuy yëkëti jotaay gi. Euh, Sénégal euh, am ci xam-xam bu ko ñëw euh, ngir jappalé ci ko tuké kon feulé ci France jamais may Toupane di entraîné kon fofé gone nga xamante ni amaguñu lu toll ci ñaar fukki at mi ngi fi nak ci lël bo xamanteni dañ koy def jagleel ko entraîneur ak arbitre yëngu ci wàllug basket ngir xol yenn stratégie yu bees lañu wara mëna tek ngir suqali li di basketball bi kon mu gis ni Jean Bétou Toupane, euh, stratégie de mënta ñàkk euh, ñu tewlu ko ak euh, Moustapha Gaye. C'est les structures des des, des équipes ou des clubs euh, professionnels a complètement changé. jamono ji mën nañ basket basketu Sénégal amna soppé ku bari gannaaw ba nga xamante club yi ñom sax euh, li ci ëpp dal joueur yi wala entraîneur bi moom ki nga xamante mom moom yor lepp euh, wayé nak lool sax mën nañ ko comprendre ndax mom moy ki nga xamné mom moy joxé dogal yi. benen seetlu tamit mom moy ñi nga xamné ñom ñoy assistant yi léeg-léeg dañ leen di xawa ñak lo fayda té ñom tamit amna na liggéey bu am solo bo xamné ñu ko fi def. pas quelque chose de péjoratif il faut simplement. Euh, euh, savoir que c'est un entraîneur comme tout le monde, mais qui a d'autres missions. bu ñuy agir ci nit bi la personne l'être humain dañuy tenir compte ci ci environnement am euh, plein de choses du coup donc loolu mooy euh, intérêt wu vraiment échange yi dafa moom. ajkot ñu yem fii ci wàllu tàggat yaram suba 13h pour téléspectateurs yi. jërëjëf Ngoné mbokk yi ñu ngi leen di gërëm xibaar yi la woon ak télévision Futur Média waaye seen programme bu leen ko fàtte émission Faram Facce ak Papa Ngagne Ndiaye 20h45 ci kanam tuuti kon dina am ne ay gan Ibra Ndiaye bu APR malik Noël sek, mouvement moom sa réew Idrissa Diallo bu parti socialiste waaye it Thierno Bocoum bu réew mi waaye it programme bi wéy en direct ci TFM ginnaaw Faram Facce lamb académique lamb académique prime time bu njëkk bi tey ji la ci wàllu éliminatoire yi di ngeen ko am en direct loolee it bu leen ko kii nettali lamb académique beneen gisin la ci wàllu lamb Ngoné ne hébergement yaag lekk ak lépp ci fële di yenn foog naa ni euh, sëñ Guèye mën na faa doxantu. dañ <laughs> ko bàyyi ci kër ga rek merci ngoone vingt heures saaka Sarr ñu fanaan jàmm.